waaw ah, loolu loolu mooy mooy mooy jàmm ji en Kajoor c'est c'est la posture responsable en tout cas moo gën. Mhm. bi mu def barki dem parce que bi bi bi loolu amee génn na barki dem mel ni kuy xuupaate di di wax ne ñi ñi man comme fii rek un peu Sénégal nos nos dirigeants là mhm. c'est-à-dire que au lieu day mbir day am au ñu analyser ko avec sérénité dañuy demee ak émotion mu naan ay ay ay ay ay bandi la ñu yu yu génn. Mhm. di di di di manif alors que ce sont les populations yoo xam ne dañoo gis lu leen naqari. Mm-hmm. jugewuñu beneen réew foofu lañu dëkk. donc euh, c'est c'est c'est bien qu'il euh, qu'il revienne à la raison ba xam ne mm-hmm. ñi doon manifester ñi mu jàppee woon ne ay terrori terroriste lañu wala dara. Mm-hmm. Euh, c'est c'est bien des des des des des des des des, populations yoo xam ne ñoom ñoo ko fal et que mu jël kii bi c'est c'est c'est sage de sa part parce que. la la la le l'Assemblée n'a pas fait son rôle. Mm-hmm. ils sont censés être là-bas au nom du peuple. peuple bi ne bëggul mais n'empêche voté nañ ko mooy li fi xew rek la majorité l'emporte après dañ nit ñi dañ leen fal yóbbu leen assemblée te du ngeen fa teewal askan wi aspiration population bi du ngeen ci bàyyi xel après vous prenez des décisions comme ça ñun fii 23 juin 2011 bi peut-être bu bu bu Sénégal bu bu lii loolu moo fi amoon ñu génn dem assemblée ki heureusement on a retiré la kii. mais on l'avait pas voté. on moom laa wax ma ne heureusement on a retiré la le le le truc mm-hmm. donc mais il y avait l'entêtement de du régime en place et même de de de leur kii mm-hmm. mais peut-être la pression a été telle que. nit ñi yooyu nañ leen woo nañ leen ci ruq ne leen lii ngeen dugal nii génnee leen ko mhm. sauf que ñële ñoom ils sont mhm. allés jusqu'à voter cette loi là donc il faut que les Africains et les dirigeants africains là ñu ñu xoolaat seen bopp. député yi itam xam ne askan wi la ñuy ci assemblée. loolu moom c'est un grand problème les députés qu'on amène à l'assemblée la il faut ñu mhm. xool ko quoi xam ñan lañu fay yóbbu.